allah malheureusement xam donc yàlla mooy dogal mu am gaañu gaañu boobu mu éloigné ko des terrains mais ba tey la gën a bëgg a jouer Sénégal chaque jour bu wax ak a jouer a jouer si U20 benn solution moo fi am mooy ñu am U23 même yu xamante ne war nañu mën a jouer si U23 bu fekkoon carrière nañ ko wa France équipe bu ñoom Mbappé bu ñu jouer ñu joué dafa am dem espoir fa la ay andi Diouf nek fa la ay joueurs yu bari nek bu ko defee dañuy préparer beneen génération pour beneen génération ñu yéeg ñeneen ñëw ainsi de suite ainsi de suite mais ñun lu dul bu ñu bëggee qualifier Jeux olympiques dañuy ñuy créer euh, donc lii di U23 maintenant war nañu am équipe espoir pour jël beaucoup de jeunes yu xamal non seulement di nga euh, caser ay joueurs di nga leen kii na la di nga leen sécuriser ba duñ dem beneen national ba duñ dem beneen dëkk vu que comme ce joueur là par exemple mën na jouer Espagne mën na jouer Italie mën na jouer Sénégal mais tey jii muy moom yeneen jeune talent yu xamante ne baax nañ mën nañ football mën nga leen teel a jël teel a sécuriser si sa petite catégorie préparer leen pour ëllëg ci biir parce que déjà kii nii bu ñëw rek jouer équipe nationale ah mënu mënu ko fa jouer c' est vrai 20 ans la am c' est vrai on on gis ay joueurs de 17 ans di ñëw équipe nationale euh, que ça soit Sénégal wala feneen mais déjà il faut que mu toj euh, réserve comme ni ko war a tojee jéem a yéeg équipe A bi fekk fa grand frère bi Bouladia donc avec de très bons conseils ak euh, Keita Baldé bi xamante ne jaaroon na fii xam nga ñu ñaanal ko mu def ay performance bu boobaa mën nañu débat ndax war nañu équipe nationale du Sénégal à wala déet la tout de suite moom sax xam na ko petite catégorie bi mën a joué xam nga donc muy U20 mais moment bi favorisé si am gaañ-gaañ mais li tax ma sawar def ci moom vidéo non seulement si ñu mu bëggee réew mi la deuxième chose mooy performance man bu mu lay bu mu lay wax ak loolu nekk sama gaañ-gaañ boo deful performance bi ma wax ci yow

après mu jub troisième division c'est compliqué pour Ibrahima moom nag mooy Mahamadou Mahamadou nag mooy le plus petit boo xoolee mu euh, mu ma kayta bale boo xoolee xam ne kii mu ma kayta bale am na ñu bokk donc euh, ma koy ñaanal mu continuer def ay performance et qui sait un jour viendra pourquoi pas mu porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal gars yi ci commentaire wax leen seen xalaat ak noo leen ko gisee Barça Séville une longue histoire longue histoire nag mën nga wax Seydou Keita mën nga wax donc euh, Daniel Alves récemment il y a beaucoup de joueurs passés par donc euh, côté de Séville donc nous fini. Barson c'est c'est Luc Badé Luc ancien euh, défenseur bu Rennes Séville pour renforcer les blessés de Arojo. départ et, eh, même Christensen et donc euh, ñoy xalaat ce joueur là euh, pour pour mu ñëw si mercato bi à noter il y a des clubs comme Stuttgart si euh, Bundesliga ñu koy bàyyi xel pour am l'international français. La ba Laporte gis ngeen ne fan yii trois matchs yi yëpp avec Al donc day dugal bi tey non non, noonu am def à la dernière minute le gars marque un but. sama taskatu xibaar bi mel ni Marca moo ngi xamal ne Laporte waa Real Madrid dañ ko bëgg aussi boo xoolee ci mercato bi dèjà moom si si ñu xamal ne da mën a si ay dirigeant la wax leen ne pare pour dem Real Madrid et bu demee Real il n'aura pas le même salaire que bu ñu fay ko mais moom pare pour def sa sacrifice donc bokk na si ay rêve am porter le maillot euh, de Real Madrid gis ngeen ne coupe d'Europe bi moo doon titulaire avec Espagne donc mu nekk euh, koo xamante ne France décembre mos ko jox chance am carrément nu mu ko bëggee mu dem Espagne jouer gagné na coupe d'Europe donc nekk tolier si défense bu ñoom Al Nassr bu ñoom Sadio Mané cette fois ci nag Real Madrid nag bëgg na ko on sait que Real euh, seen défense bi voilà bu ñu la défense souvent sax dañuy jël ci Tchouaméni bi xamante ne milieu terrain di rek défense ñoom gis nañ ne nag l'international français mën na nekk ce joueur là bi mën a donc dooleel seen défense waa Docteur Moune aussi dañoo bëgg renforcer ñoom tamit ñoo ngi wax ne Kerkez bëgg nañ ko bëgg nañ tamit Chilwell joueur bu Chelsea bi xamante ne voilà Chelsea booloo ñu ko seen na laa ko mën a waxee booloo booloo ñu ko seen i plan parce que boo xoolee du côté de son club dañ doon wax dañ ko woon jaaman si United cette fois ci ni si Dortmund bi xamante ne in intéressé par l' international anglais mu nekk un très bon joueur Kerkez aussi tamit xam Milos Kerkez un très bon joueur très bon profil bu xamante ne Dortmund aussi tamit mu ngi koy bàyyi xel John Duran euh, boy bi xamante ne on peut dire révélation la si début de saison bi te marqué des contre Bayern Munich à chaque fois mu dugg deuxième mi-temps day dugal on waxoon nañ ni Barça sax la nekk cette fois ci nekk Arsenal Arsenal dafa dugg suñu dossier donc mu nek ñaari club yu xamante voilà dañuy bàyyi euh, attaquant bi euh, xel mu nekk un très bon profil bu mën def appel contre appel très bon joker bu baax en deuxième période il est capable de faire un très bon match et actuellement début saison bi bokk na si révélation yi ba tax na Barça dugg na si dossier bi yàggoon nañ ko yàgg na xamoon nañ ko mais cette fois si si Arsenal mu nekk saa benn ñaari équipe yu xamante ne soxla nañu attaquant bi ah ñun sama club ñoo si bëgg a dal de euh, sunu taskatu xibaar yu mel ni moo ngi xamale ne kii di Rashford dafa bëgg a football mais lu nga gàngatee on sait que Aston Villa di ñaan moom mu ngi nii si suuf dafa soxla mais y' a surtout Napoli ak Marseille ñu xamante ne loin mais de Angleterre la c' est pas nag euh, Greenwood xaritam moo koy jéem a convaincre Marseille. parce que Rashford saa bu mag yi donte nag eh, ses performances course de Manchester United c' est hyper compliqué mais Manchester moom saa nekk fa bañ a gis lu mën ne nekk la dem beneen club gis lu mën a nekk parce que je pense que kii c' est c' est ici que ça se passe avoir cet attaquant là t'as qui est capable de te faire des matchs comme classico bi ñu jëm nii boo amoon benn Rashford moom à lui seul mën a réew waa waa Paris par exemple s' il retrouve niveau. donc jamono bi on parle de deux clubs olympique de Marseille Napoli parce que moom nee na dafa bëgg a sori Angleterre moo tax Aston Villa ni presque dossier bi day wàcc donc euh, peut-être dëkki naar yi Italie yi feneen ak feneen et que Italie on parle de Napoli France on parle de Marseille quel est le bon choix nag c'est à lui de choisir ah saa a gagné na recours bi de gagné na waa Marseille de si kanamu LFP quoi si su salaire am bu ñu naroon kii wàññi këti këti mu bañoon entraînement instant bi seulement mu ngi entraîné avec bi xamal na carrément bokk ko suñu ay plan mais déjà c' est ça mais comptage entre Marseille ak moom donc moom mii di même ba justice du jeu existe moom moo mujjee euh, gagné. enfin enfin notre Mikayil Faye moo ngi lancé carrière comme ni mu ko bëggee du côté de Rennes. donc encore une fois bi passe de titulaire tey titulaire nan voire ñu gagné donc lii di euh, Le Havre donc ñu ngi féliciter. parce que franchement bi féliciter jógee félicité Barcelone sama genre yi nga Barcelone pour avoir du temps de jeu maintenant joxuñu le que dem nga dans équipe comme ren pour progresser c'est bien et même pour ñëwaat porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal ñu convaincre il faut que tu joues là tu joues donc mën nañ convaincu de l'équipe nationale du Sénégal parce que tu es un joueur très très prometteur donc. Franchement, moi, le fait que je me toutes les règles, pour moi, c'est bon signe pour la suite. Pas Amadou Diallo, buteur encore une fois. Pas Amadou Diallo, souvent, c'est comment dire, mais Mohamed, nous ne convoquons pas Amadou Diallo, vu que nous avons des problèmes d'élite. En tout cas, franchement, pour moi, beaucoup de ces listes, nous avons doublé de Ismaël Sa, ou la concurrence Ismaël Sa, et doublé de Sadio vu que nous manquons des joueurs de couloir. Et je pense que ici, Chambi, on a le temps si petite catégorie bi ma ñëwee on a na temps c'est quelqu'un qui sait dribbler c'est quelqu'un qui xamante ne mën na andil jafe défenseur et parfois souvent day nekk buteur donc am une facilité de dribble man devez defee par exemple accélérer, rek yenn saa yi day xelli yenn saa yi day tiré croise je pense que Metz euh, objectif yi ñu am maanaam yéegal lii di Ligue 1 française mën nañ compter sur ce joueur là avec le numéro 10 doomu ndar bii donc pas Amadou Diallo bii dugal bii tey wax félicitations Sadio Manjou, joué na match bi yëpp 90 minutes joué nañ ko euh, noonu affaire noonu la ñàng nag demoon na ñu leen xam nga donc à la fin la Laporte dugal bi mais suñu Sadio Mané ñu def match nul suñu Sadio Mané joué match bi yëpp donc c' est bon pour la suite c' est bon même pour ñun ñii di supporters yi parce que Sadio Mané avec euh, euh, entraîneur bi fi nekkoon ak avec Pioli je pense que gis naa changement du côté de son club avec Al Nassr et même du côté de Ligue nationale du Sénégal je vois un Sadio Mané bu ëpp bu am punch un Sadio Mané bi xam à chaque fois day demander bali bali pour def la pour def ay différence Et c'est très intéressant aussi de Sadio Mané à ce niveau-là, même s'il si peut faire mieux. Si nous gagnons il faut aller euh, U17 yi xam nga donc euh, dem nañu demi finale ñu leen félicité après ñu door donc euh, mënuñu leen wax félicitation xam nga naa fa sax lañu saane suñu ancien bi foofu comme adjoint et l'entraîneur bi fa nekk nii aussi félicitation parce que c'est pas évident Serigne Saliou Dia moo yor U17 lu bëri changé na fi Serigne Saliou dem na u yi keneen ñëw na. et euh, donc liggéey bi xamantene centre ñoo koy def dañ koy day feeñ bu baax ba suñu petite catégorie on dit félicitation staff bi mais surtout félicitation centre yi nekk fii Sénégal parce que bu ñu mën a amee genre pépite yi c'est ñoom ñooñu la ñoo def liggéey bi ci ginnaaw fédération daf leen war a accompagner parce que bu leen accompagner ñoo ñu si am résultat ñooy def ce genre de performance et bravo au groupe et donc il reste deux matchs deux finales donc def leen seen kéemtalaay kattan ba ndam li def fii Sénégal. Soumaré Soumaré Soumaré Boubacar Soumaré xam nga gars yi xam ngeen joueur bi li ma def si moom ay je pense que nii ma sur YouTube 2019, 2020, 2021, on est en 2024. on est en 2024. mille vingt quatre kaw dama wax ñu Sénégal mais il est en train de perdre ce niveau am Pour par rapport ak blessure tey nag ñoom doon leen nous ñoom dañ deux dóor trois depuis dëkk Nottingham moom dugg deuxième mi-temps maintenant la blessure la jógee moo ngi yéeg nànk Mais mais on continue comme ça ça va être compliqué ça va être compliqué pour lui de Boubacar Soumaré un joueur que j'aime bien boxe boxe ça. non-défilé, c'était tellement extraordinaire. Mais là, je reconnais tout le jour. Quoi. Maintenant, bon, moi, je suis blessure. dinaa def nank nank xool esthétique yi xool quelques marchands du côté de l'insert pour wax naa mën na prétendre une place en équipe nationale mais là il doit faire plus